kay ci ji Mouhamed Ndiaye. sëñ Fall des koy door ak l'observateur mi xëy dikk ak ñun ci ponk yu bari bokk na ci Cheikh Yérim Seck mi nga xam ne nee na mbir yi bati plus ak kàddu yu mu ci yëkkati tax na ñu daal di koy convoqué ca gendarmerie. l'observateur dikk naa ñu nit ci ñi amee corona ba yàlla def ñu wér gannaaw bu ñu wéree li ñuy dund nepp coona ak euh, ni leen nit ñi di xoolee l'observateur xëy na ci dellu si waxtaan wow seq na koy te Sohamel Wardini maire bu euh, Ndakaaru muy wax ci. littoral beeg euh, ni ñu ko def l'observateur dikk ak ñun ci euh, kii di Ndiaga Euro manager bu Wally Seck la ci ni ko journal bi waxee ni nga xamante ne ji noone la ñu ko sàccee woon soixante dix millions ak nañu def ba jàpp sàcc ya L'Obs dikk na wala football def na enquête ci euh, li indil Salif saane ay jafe-jafe yoo xamante ne ji mi ngi koy dund mu di galère. soleil national dikk ak ñun ci remise partielle bu dette fiscale yi ana nguur gi leeral na kon nan la ñu fas yéenee doxalee yëf yi. La Tribune xëy ñu xamal ne Cheikh Yérim Seck mbóot yu rëy la sulli grosse révélation am na ñetti ministre de la république yoo xam ne kon FBI teg na leen ay gët libération dikk ak ñun ci juróom-ñaari bato yi chinois yoo xam ne Sénégal da leen a may licence de pêche yéenekaay bi nañu ci diirub ñetti fan euh, Fuyaan yu noonee la tudd yéenekaay bi xëy kon di ñu ko leeralal le quotidien ñëw ñun ci borob Sénégal ak fausse note bi nga xamante ne ji mu diis defe euh, joxe na ko ab agence la boo xamante ne ji dal Euh, yéenekaay bi xëy na ñu xamal ne li mu ci wax doonul lu taxaw les échos dikk ak ñun ci daje bi nga xamante ne ji kon am na àjjuma dox ci diggante syndicaliste yi séq wàllu njàng meek njàngale mi euh, ak ñi nga xam ne kon ñoo ci syndicaliste yi ci njàng meek njàngale mi ak acteurs yi ci yëngu nee na Mamadou Talla ministre éducation national mi ngi waajal bu baax a baax ubbite classe ki ndax nee na ak lu mën di xew gune yi def examen moom dañ ko dañ ko war a defi sur soit ci loolee la xëy mu di ndaje mi nga xamante ne ji kon ministre éducation réunion seqoon na ko syndicat G7 yi ndaje maak na mu mujje ak na nañu fa sëkkatalee kii di ministre éducation nationale l'info dikk ak ñun ci jàngalekat yi seen digg xaalis nee na wayu la woo xamante ne yàgg nañ leen koo bakke enquête dikk ak ñun ci scandale foncier bu am ci diwaanu Diass teg nañu fa loxo benn waay moo fa teg loxo lu tollu ci cinquante cinq hectares yéen a bi nañu suuf soose ba ñu koy ba ñu koy njëkk a wax projet futuriste la ñu ko tuddoon benn promoteur bu ñu naan Mamadou Clédor Fall moo ko moo ko moo ko yëkkati woon doon dox mujj gi ci ay kër yu ñu dagg dëkk ci la dëkk ci la mujj kon record dikk ak ñun ci coupe d'Italie finale bi Naples ak Juventus de Turin ñoo koy football àllarba la nee na Kalidou Koulibaly ma ngay défier ji Cristiano Ronaldo stade dikk ak ñun ci Liga Barça maanaam wutali na kon ngir gàddu gàddu titre bi Real moom it topp ko course au titre la gis ne tàmbaliwaat na ci diggante ki nga xamante ne ci diggante ñaari club yi mu di Barça ak ak Real sunu lamb lañ koy jeexale sëñ Fall docteur Alioune Sarr njiital CNG bi la xëy di waxtaanal lu aju ci li ñu koy bàyyiloo lu aju ci ati retraite yi mbër yi lu aju ci doxalinu CNG ak xeetu làmb bi ñu naan MMA suma ma jumul noonu la euh, loolee lépp moom docteur Alioune Sarr xëy na di ci waxtaan ak journaliste yu sunu lamb yi. jaajëf Mouhamed ba ci